bés ni ki tey yemboog arxemes fukki fan ak ñeent ci weeru avril atum 2022 yemboo ak signature convention bi doon dox ci diggante LONASE ak fédération sénégalaise de basketball ginnaaw bi ñu amalee bile convention ni ki daaw nag te xayma woon ko mu tolloon ci juróom fukki million maanaam 50 millions de francs fa le directeur général monsieur Lat Diop daf ko fa fas yéene salaat waaye tamit daal di koy yokk ba juróom-ñaar fukki million maanaam 70 millions de francs li ni mel nag dara waralu ko lu dul bëgg gu ma bëgg sport waral yile convention. dañu war a signer euh, convention ak fédération sénégalaise de basketball ak LONASE euh, convention bi ñu xayma ko ci soixante-dix millions yoo xamante ni LONASE da koy jàppale fédération bi ngir mën ko dimbali mu gën a taxaw ci ay euh, wareefam ñu ñu leen di wax ni LONASE mu ngi ci gannaaw basket bi. te incha allah maître euh, li ñu wax fi tey mooy dañu jël engagement ngir gën leen a jàppale ci li ngeen nekk même bu dul convention bi sax ci lu ko jéggi boo leen ñu sollicité ci loo xam ne ne war nañ leen cee mën a jàppale ngir ngeen yëkkati raaya réew mi loolu LONASE du ci du ci du ci du ci du leen tànqamlu donc na leen wóor ni euh, am ngeen fi ay partenaires am ngeen fi ñoo xamante ni li leen ñor rek mooy raaya Sénégal mu gën a jëm ci kanam te LONASE entreprise la boo xamante ni loolu lu ko ñor la. daaw lañ ko saisiroon demandé ko ñu relancer waat le partenariat fédération sénégalaise de basket l'ONAS aussitôt après il a accepté signé ñu benn convention. aujourd'hui aussi fédération moom di ko war yëpp dina ko def si contrat bi pour mu nekk un partenariat gagnant-gagnant dans l'intérêt du sport sénégalais. l'ONAS li ko tax a jóg mooy jàppale askan wi jàppale réew mi ci composante yëpp. Lonase tey am na fondation boo xam ne mu ngi dimbali néew gi doole yi mu ngi def lu bëri ci social mu ngi def ci sport mu ngi def ci environnement mu ngi def ci culture mu ngi def ci religion waaye Lonase aussi mu ngi def ci football mu ngi def ci basket mu ngi def ci course hippique mu ngi def ci làmb ji mu ngi def ci lu bëree bëri bëri bëri bëri bëri donc ngir wax rek ni Lonase entreprise la boo xam ne sénégalais yi ñoo ko ñoo ko moom waaye sénégalais yi ñoo ko tax a jóg aussi convention boobu moo permettre pour la première fois dans l'histoire de notre basket suñu équipe U19 qualifiée quart de finale coupe du monde quart de finale coupe du monde c'est énorme boo xamee au niveau du caaxaat dem ba nga xam ne ni États-Unis moo ñu éliminé vraiment ñu def une bonne participation pour la première fois waxuma la ñu qualifié deuxième tour mais ñu qualifié quart de finale loolu LONASE moo ko permettre woon monsieur Lat Diop nitu parole la nitu dëgg la bu ma waxee parce que bi jeex na depuis le mois de janvier mu woo ma ne ma non président euh, je vous promets le contrat sera renouvelé déglu ma dinaa la woo ni mu ko waxee woon noonu la ko defee donc lu am lu am solo